ndax da ngeen namm togg bu saf sap rafet lool ci melokaan bu sell seeni magi maaman yii dañu leen liggéeyee ak li ngeen taamu di safalee seeni togg ngir jox ko melokaan bu taaru bu amul fenn togg ak du aajoo nga siy def xorom togg ak Maggi at bu ñu ma la rayoon léegi du violation domicile. bala ngaa ñëw doo woote bunt bu ñu lonk loo si loqat. nañ ma nu ne toogal. Eh! <laughs> neexul ba neexul waaye démb laay doog xam ni ngaari mi ci siit bàyyi laay mi ci li tubaab naan quand un vieillard meurt, c'est un bleu qui brûle. mag du yàlla waaye yàgg nag yàlla <laughs> yéenay bandi gis nga fi ngeen ngir jàpp xale yi rukk leen a rukk rukk rukk rukk rukk rukk rukk man mel ni yi ku ci nekk fu mu toll nii sa wet ak nit ngeen ni bëgg a jël ci bi public ba waaye ni ngeen ma waxoon fa leen ko teg mun hmm. ñëw ndëkkate yoo teg ngeen plan B Hmm. boo xamante ni nii ah ah ah ah xam nga lu ma bëgg. Hmm. léegi nag désormais. Hmm. gone yee mënatuma ànd ak ñoom. ah ah kay li ne seen bopp bii nekkul seen bopp ñoom bu ma ni bëxët ñëpp gis kenn ki mën wàcc sax mënu ko wàcc. am moom te te saa demagul fenn am na problème je la te xam naa sama diggante ak ñoom day métti ma ne woon nag léegi naa rangé wu naa wu ci yéen. ñu ndoo di dóorandoo. gis nga talmat ñu mel na yéen yéen a yàq Sénégal. kañ bu ngeen ànd ak nit mu jóg ca kaw ngeen ànd ak moom bu loo ngeen bàyyi ko mu wéet. ay eh, déedéet lu ko yemale. nit booy ànd ak moom muy metti bu neexee bu naqaree da ngay toog ànd ak moom mettit bi yaa ngi yàq deru géwél yi muy benn Youssou Ndour ak a mën a wañ. loolu bañu démb bu ñu nangoo tey seen pexe jubul yéen bu seen pexe eh, jubul. man man. Eh, mooy dagg wàcc am. ah, ah man maay wax man maay wax nga déglu ma. bisimilah seen pexe bu juboon da ñuy toroxal da ngeen bëgg a génne géew bi xam nga jaan bu tax bu génnee ñëpp daw. mooy day nëbbatu. eh suñu plan de guerre duñ ko wax. laa ilaaha illallaah génne wuñu dara. beneen bi mooy lu ñu toroxal gone rek toroxal nañ la ko fa nga bokkoon. weddiwu ko di. waaw xam nga timbax mbalax bi mooy lan ñu ku ñu ko rimbax ñu timbax la ko. eh waay la. ku ñu ji ñu jin ko ku ñu ji ñu ñu bakkoo ki ndëndëm. fi nga ñëwee nag baaxul. ndax ndax da ñëw fekk man ma démissionné groupe Timbaxal Mbaax tas na alors bu tasul woon sax yow mënoo cee bokk. xam da ngay ñëw wàq fi gas fële. mukk fa fële suul fee. yaa ngi yàq deru gi wële. waaye dafa nàkk. tas na ndax damaa dóor sàmm. <laughs> toj naa ba. yóbbul boobu. yow daal da nga yaakaar ni daal may sa xale boo xam ne fi mu ne ñoo ko njaay nga ne demal jëndi tàngal. import export nga yow. déedéet koo jëlee fii wax yóbbu. mukk ci kër yàlla de. Talmar ah, ah, waaye defal te ak Talmar xamante nañu. billaahi groupe bi tas na. xoolal naka dëgg bi yëpp. billaahi xoolal tas nañ. waaye déglu ma wax nañ xam naa ko. waaw waaye léegi d'accord naa ne tas yéen. basa basa waaye dimbali li na ma <laughs> xam naa ni groupe boobu ak niveau bi ngeen toll. waaw ah loolu mënut a tasee noonu. tas na tas na. lu ko tas. maa dóor sàmb carte ga jeex. waaye woo ko jàmm ji. sa passe jeex na nag mën ngaa dem yóbbu ma si benn ma dese la. waaye léegi dem des na. waaw doo ñëw man ak yow ñu tëj réew mi. waaw du combat. ngay jolli mbeer di way. waaw ma ni bëxët ñëpp. ndax bu dee mbaar mbëpp ak njolli. Mhm. loolu moom mi ngi fii ma téye moom. waaw te tufar fa kàlla macha allah bii ba nga wayee sama xel daa dem ci ñàkk bay. man ku dul sàmm du ma ànd ak moom. ah te avec Inesta ni ñu mënoon si terrain bi di ciwi ciwi moom xam naa ne bañ naa ko mais moom rek ma mën a dégg. Euh, danga bëgg a bokk ak man dama lay testé si ñaar su ma nee rakk cakki cak sakki ca kii caagaag loo may tontu. gin gi gin gin. gin gin gin saay sori nga nga kàccaat ma ci looloo tontu bi. nga xam ne Birima Fatma ci boom bisaan Fatma loo siy teg. lan <laughs> nga fu mu miin. dama. kooku Ndiaye Ndiaye. i kooku Ndiaye Ndiaye. daanu nga. ah. danga naan ma deccandee la njaayoo caafuñ baangee mu la maa ngi yow du combat ah, waaw waaw waaw dama jawale histoire yi demal Ifan nga jàngat yaa ngi déwlu jàngu leen demal. kon ba tax na mënoo maa bokk. mënuñoo ànd ma ak yow du combat. bàyyi ngeen. Euh, Talmat mën nga génn mënoo génn am nga loo yóbbu. ah neel neel groupe di mbax tas na. bu leen tasee dañuy gën a am doole leen. yokk suñu force. su leen fecc xale. <laughs> yéen a ko waxoon leen. waaye dara su mag. yow moom ci digg bi nga. doo mag doo xale. te ñun ñëpp yaa ñu mag. yaa ngi doo wane sa carte d'identité mukk. ay bu yow génn ko. Oh. tësës bureau ba toj na seng yan naaw bant ya jaaxaan xam nga lan la xam nga lan la man du ngeen def seen yi ngeen def ba pare bëgg ma rek ay seng bu naaw ba ay bureau bu toj sama nekku ci ay baadoola ngeen yéen ñett kuy dem nguur baadoola ba yow ci yéen day taxaw ndax ay yéen ay nit yu bon ngeen yéen yéen yéen yéen a bon waaye baax la am naa suñu kanam dem leen rek yow coow lu rëy li am ak xeex bu rëy bii ak hmm. ànd bu yàgg bi nga xam ne moom la Baba Ndiémé di ànd ak hmm. dengoñ ah, ah, ah, ah mu rafet lool <laughs> yàgg lool ñu dem xeex ba déngoom ah Baba Ndiémé toj bëtub dengoñ ba oh, déngoom oh, ba mu oh. toll nii ah <laughs> wallaay wallaay dëgg la xaalis baaxul ca seddooma doomala xaalis baaxul baa doola moo mën a yor xaalis am ngor ngor moo mën a yor xaalis ci ay sa waaye baadoola baadoola bu yoree xaalis du xam nu mu koy defee ñooñu xam nga ni bu ndewee ba téye un million seen loxo bi hmm? yàlla mën a tax nga ni un million ah. buñ ko téyee man maa tax buñ ko téyee xeexaguñu sax xam nga fu ñu téyee un million da nga bokk ci xaalis bokk fa da ngeen seddoo seen xaalis du def may fu baadoola yi ngeen ma def eh, doot eh, eh, yow nga ne un million lan yow yëgoon ni sabar gii ñu dem barke démb un million lañ leen fa jox yëgoo la ilaha illallah un million lan lay jox yoo xam nga ne lan yaa ko tay man ngay ceddu ndax leen ma jox naqari na ma am déet na ni day sept mille cinq cent lan ma wax ni moom lañu fay lan la lay jël deux mille jox ma trois mille allahu akbar ñu ñooy baadoo la lii lañ ma def moo tax di daan ray rayante ah di daan rayante man lin ma def ci digg mbedd mi xamoon naa ni waxuma xeex waaye boo ma tur nañ jamante paak man gor pire laa ñu dóor ma ci digg mbedd mi nangu samay portable bi nga xamante Cheikh ma ci duwaay moom ma ah, ah, no dégg nangu ko fu summi ma ci digg mbedd mi dàq ji ma dee dégg ma xamoon na xeexagunu ñaar ñoon xeexagunu baax na dégg naa la xeexagunu man moom sans wàll ko faj incha allah waaye xam nga dañ ay julli hmm, eh, eh, eh. pour lan ah kay ci ànd bi yàgg na te war nañoo rus ñoom ñaar ñu mel ne ñu mel ak bi ñu jëfante ñoom ñaar ci adduna si ñu fekkee ko di suñu kanam léegi léegi lan la xam naa ñu jëm ji man man eh, xam nga magay xam nga lan la bu ma rusul woon dinaa la def loo xamante ni doo génn fii man dinañ ma dóor ci mbedd mi summi ma def ma yaramu neen nangu samay portable nangu sama lépp ma def di leen jubale man pour ñoom ñaar ñu juboo waaye magay yow fot sa waay tës sa eh, ay bàyyi ma nga xam ma mas mas waay julit nga daw ma bu ma ko wax daal waay dafa ndànk dalal dalal dalal fokk ñu dem jubale leen nañu dem ñu àndaat ndax ànd ba it mooy sunu mooy sunu kii te ñoom ñaar dëkk bii dañ fee nel noo xam ni ñoo fi di jëwal ñu nii di ñun bu ñu jaxasoo nu ñu gos kon génn ñi ree ñu di jugoon ñu dem wàllu jullit kat jullit ab jullit moom jullit dong lay doon jugoon dem jàpp ca lee fexe ba ñoom ñaar ñu àndal liñ la def nag muñ ko dañ ma def muñ ko rek ñu dem jubal leen loolu fi des li ñaan la ñuy def billaahi ma ngay seet naa la ci ah, seet naa la ci waaye bu doon man ak man ah rombante ñoom ci mbedd mi ñuy jamante paaka sax ah, ah, du ma àtte waaye nag xaw ma nu ma lay def xaw ma nu ma lay def waaw ndax yëf yi moom gis nga ni mu demee rek ma man dama leen man xam nga yëf yi lan la dama leen doon jéem a dóor ñu dóor la execo la rek lan <laughs> leen fay dama dama leen doon leen dóor dóor ba ko fekkee woon nañ ma def nga may def mooy moo tax naa dee de ah? <laughs> daa tëj ma daat ci ah? man de gëm ma ak ñoom foofu waaye na ma ni fu ñu jëm ma ak moom déet ni comme da ngay ñaan réconciliation nañ bàyyi lépp mu sedd rek nan dem jubóo leen bàyyi mu sedd kon jubóo kontaan naa lii de moom cër yàlla na ko yàlla yeggal. jërëjëf waay. amiin waaw amiin de saa ma wér fii. ah ba léegi jëm na kaw. waxe ma ay waxu jonga ay dangaa jom maam nga ay damaa jonga wax yooyu dañ ko dépassé. non xam nga ji pare na. wallaay. ji ma la présenté. paa moom nee na dalay takk. Hmm. pare na wax naa xaritam wax naa ñépp ii xam laa bëgg nag nga bàyyi sa dof-dof lu gi sa bandi bandi lu bi te nga sëyal ko xam nga man xam naa la bu baax man xam naa reykatu nit ka ii waaw. kon xam nga loolu. yëfu ay science hmm. bëgg naa nag nga changer soppeeku carrément. te sëyal ko. yow xam nga ne man sëykat laa de. dëgg ko daal xam nga jonge beeg xajam beeg soxor beeg yooyu du man teyuma ko sama wujju yaay ma liggéey. ma rek nelaw ma de xam naa lépp damaa sangu rek moo ma liggéey teyuma ko man bëgg naa sax bàyyi kaay ma wax damaa farlu nag de su ma farlu wutoon kaay ma wax la ñaari baat kon ñii de dinañ bari de damaa farlu rek damaa kii rek. kon baax na. ñàkk fu la ñàkk fayda. yéen ñi am ngeen jom yéen ngeen mel ne kuy dundal tool. yéen mënoon leen a bàyyi jëkkëri jaamur yi ngeen di wër. ah yow kat ngay waral man. eh yow waxumaa yow yow moom dama laa tegee ne la laissez ma la ñëwee sama kër gii teg la fi pour nga may xoolal yow amoon lenn looy xool lu du xool ba nangu sama jëkkëri waxuma ak yow. dégg nga waaw man ngay lépp la tool léegi di wax ci kaw. dama yoo xam nga kii nga gis moo tax ngay mere mere. ah ah ah ndax kii dama kaa faale kii yëppalu ma di kii ko waaw man soo motu dama yow tuur ba nga bëgg a dee yëg ca kaw. di baara mbay daf li ma lii la bambara di wax lii la bambara di wax ndabaru banta pe pe pe pe pardon. Euh. Oh, excuse-moi yow koy waxal. yow est-ce que ça man mii yow laay wax kan laay vingt et un giga bu soo xam nga ne doomu aadama ah, gis nga nit soo demee ba yu wax hmm. da ngay xool sa calibre da ngay xool sa calibre da xool ñi nga war a waxal daal yow boo nu fekkee ñu toog nii ñun ñii nga ñëw di wax ak ñoom xam nga ne loolu dafa am lu tax. donc kii daa am fit léegi man looloo ma jaaxal yow kañ nga am fit. man dama leen fi jàng dama faalewu a yëngu ba seen rëyaay moo tax ngeen dafa dama leen a. waaw dañu lay wax nii man eh, dégg ma dama boo demee ba xeex am ku la xeexal nga dem bay xulu am ku xeex xulu na nga naan yow am nga chance yow. c'est <laughs> eh bon man de gi lépp dafa ñu sax calme. très bien. tey eh, tey toogal. da ngay na tàkk bi sax kañ la yow. ne kañ lay tàkk. yónnee mënoon ko indi. nii nii. te bëgg xew nag xam naa. damay xew waaw. <laughs> damay xew lu mel ni Thiès ak Lampon. merci xew lu mel ni Njaajaan Njaay. waaw def toog tay baas def lu weex. lu weex noonu laa bëgg nga def voilà. <coughs> moom sax ana ana mu jaar. wii kan baaru ñebe. ma ñëw borom Kanaakiri. bi ma ñëw ko. gisuma ko <laughs> ah tàng daal. waaye xew bi naka nga xew kan moo koy dëgg. da ngay laajte. sama doom ji Papi Chou. mooy indi bongo sama jaara indi sabar yi. xew bu mag naan seetaan. Alima waaw peeral sama benn bët bi waaw xoolu naa de xoolu naa si waa ba jéema waaw moom daal ci benn programme lañ doon wax rek werante bi di kii rek mu mu mu paccal ma picc daal la ma def ma ma ma waaw waaw géwal kay du loolu mu mu géwal la waaye moom baaba njéeme ndax géwal piir la loolu kay la ñuy werante hmm. waaw waaw waaw te ma waay dara waaw waaw di nga fi ñëw waaw ah, baax na waaw na transfert bi jiitu ñëw bi waaw wareetaan loo waay jërëjëf allo alaaji Mansour mbay masu mbay masu mbay ah ah du jàmm kay waa ji baaba jéem waaw moo ma jàmb rabbu de ci bët waaw waaw ah, xanaa di jaay affaire u rek mukk du ko porté plainte dama koy bàyyi conscience am rek ak ngéwal ngéwal dina ko yedd hmm. kay dama la doon yóbbante ci président de république rek Macky Sall waaw waaw nee ko dañoo maa jam ci bët waaw hmm. Hmm. baax na mbay baax na baax na hmm. allo waaw eh. waaye moom xam naa lu ma ca mën a ñëw moom ak sama bët bi waaw ah. jërëjëf mbay jërëjëf merci hmm. waaw moom sama situation moom président transfert rek a ci man baaba rek sama moo ci man dara ñooñu ah woo woo woo woo ah baaba jéema lool baaba joku kokolla waaw tes tes kokola ma lan nga ma indee bi lu ma la fi ñu xamoo bal dina yow nii liñ ma jëf dina def nii ak jëf ñun yi xew nii def man man may na mi rek laa la bëgg a waxat man ku xamul lu ma boote man xam naa li ma boote man ngeen di toroxal ci digg mbedd mi nii di simbi sama yére di ma jéem a def dégg nga maam ah, wutug neen gisagu leen dara sax koo xamul lu muy luñ ko boote danga koy bàyyi mu mel di ma jiñ ay sàcc di ma toroxal ci digg mbedd mi xamal nga ni dina ma fayul de xamal nga yàlla dina ma fayul de tas ma yóbbu tuur sama nekku ci loolu man waaw loolu nga ma seet sama yoon ci loolu waaw dindal sunu kanam la sama kanam lañ ma ko dañ ko ko defee liñ ma dafa gën a métti fop ah eh, eh, dafa nga ni war nañu ay sept cent mille rek na nga ñu ma jox trois mille francs juróom benn téeméer. man la la docteur Amine. moom bi waaw bul nettali yooyu bul nettali yooyu. yéen yéen yéen a bon yéen yéen a bon. nekkate li ngeen ma doon jiñ sàcc yëpp da ngeen sàcc kii. bu dee. nekkate li ngeen may jiñ sàcc yëpp da ngeen sàcc kii. un million lañ leen fay. un million yu ma dërëm lañ leen fay moom futti ma ci mbedd mi. di di ma jiñ sàcc mbedd mi xale yëpp topp ma. sàcc wuub sàcc wuub bàyyi test sax xamoon ngeen ni di ngeen. gaay xamul ngeen di ngeen xeex pare naa ma ñeenti téeméer yi ñun sax ku ne ñeenti téeméer ku ne ñetti téeméer la am ñu jox la ñeenti téeméer yëf yi sept mille la woon non subhanallah ji ji jëpp sama gaay waaye nag leen ñu sama gaay sama gaay wuy leen ma tal leen bët bi tal leen bët bi ba leen coow ñu tàqali ko loolu la gën mun mun mun ñoo tàqali ko oh, li ma ñaan la rek li ma ñaan la rek li ma ñaan la rek ba ma indi la ndax ànd bi mun ta tàqali ko léegi moom fi mu toll nii ah. na ku ne jaar sa bor ndax groupe bi moom tasaaroo na moom ah. groupe bi moom comme lii lépp am na fi moom na ku ne seet ni nga def rek ak càccan ay xeex ay dóorante moom balaa mu paka jamante paakaa des ah. waaw ay càccante kat moom moo dóor moom moo ma dóor de waaw léegi gars yi bi moom na tas waaw bu yoboo mu tas yoon nekkut ci waaye fexe leen jubale tas duñu lay jubale ak baaba njéeme waaw waaw déggul dama lay wax rek yow laa waaw Baba Diémé damaa dig lu neex. lu neex lu mel nan Baba Diémé na la dóor ba sa benn bët bi pat mu lay digati leneen. waaw dig bi yàgg na damay dama xam nekk ci biir ku bon kii. waaw maa lu neex. lu neex lan. xale bu neex kay la ma dig ne dama koy tax. <laughs> yow yaa ñàkk jom sa benn bët bi pat lijjanti woo nga naan baaba njéeme dafa ma dégg gel bu neex ak xale bu neex doofu tal sa bët bi ñii di ay waaye bu leer ma xas dimbali leer gi yàlla ak yéen waaye nag leen ci àqu ngewal ginnaaw ay jàmm daf leen ci ah. ànd bi yàgg na mm-hmm. te lépp loo xam ne ko war na saxaal bu ñu cee taxaw mm-hmm. comme moom def na lu ni weng yow miit lu ni weng nga def ñu def la lu ni weng waaw kon nañ boole lépp dëxañ ko denc mm-hmm. te àndaat jël ko moom mii jëm ko yóbbu rek dañuy def neneen leen de bëgg naa la koy gal yàlla mi ma tiim xam ne yow laa ji seet ah. waaye bu ma la ci seetuloon sama yoon du nekk ci ñoom ñaar du ma sama yoon du nekk ci ñoom ñaar xam nga man de waaw bu doon ko jéem du doon ko jéem tane la rek waaw nan ko ji a jël mu sol ñu ànd ak moom yóbbu ko léegi def ko demal nga sol say rek ñun ñu def ko wenn yoon xam nga ne amoo jom bu ngeen amoon joom duñ la dóor nga may woo naan ma jubale ma baaba njéeme yàlla bu leen yàlla alak waaw yow dam dawal sol jëri rek yooyu yëpp jaru ko yooyu ko waxu waxu awoo la rek nga lay wax ci amba moo a bon waaw moom sax moom sax wala ma sol dara ñëw yëkkati ko man de man man walaa yëkkati ndax yaa ma sax waaw na garaawul rek gën a gore rek ay billahi ma mel ne yow du ma la laal du ma la jege. du ma la seet seet nag bu ma ko jekkoo. waaye doo jee yow dama ah, yow tamit dama kër wax waxi jeeg jubale leen ma di wax waxi jeeg jubale leen ma ngay wax waxi jeeg bu la eh, fekkee dañ la yóbbu foofu nga xeex nga ko wax ñu bañ a dem yow wuy ma may ñu nag nun nun li jëm ah. li lijjanti wax ju bari ji moom ma indiwuñu baaba yéeme def nga lu ñaaw def nga lu ñaaw mhm. lii nga def nii tegoo ko fenn tey seen diggante dóorante ba ci gaañante ay bët wax dëgg yàlla waru ci woon am waaw te ñaaw na nag ah déedéet waaye ñaaw na lool trop sax doomu aadama yi ci dëkk bi xam leen ni ñu leen xamee oh. ni ngeen juddoo ak ni ngeen yaroo ba nëgë ni ànd ànd bu rafet bi ngeen ànd mhm. tey ngeen di yëkkati bu loo dóorante ma dóor waaye yow tam may gis ngeen gis ngeen yéen ngeen waxee du noonu te am na lu may seet moo tax dàquma leen sama kër ñoo nga noo dàq Sénégal xamuñu ku tooñ ku fayu lañu xam dàq yow boo seytaanewul naa feqoo yaa ngi fa woon waaw ma ne Sénégal maa fi gën a neex jabar mun a ku weddi laaj ma indi indi coow loo xamante ni nii yow bu ma la waxoon sa jabar ji neex na maa ca xam dara di looy def. dama lay ñam ba pare ñu jubóo. loolu ah, ah dama ko ñam déedéet bu ko waxaatoon ma ñamaat. waaw waaw waaw man waaye man waxewu ma foofu. dafa toll ca bopp ko ba. kii li ma ko xamee. waaw ah. lu mu yor maa ko takki. lu ma yor moo ko takki. waaw. maa ngi moom dund na lu ne ànd fu def lu ne dëgg yàlla dégg nga. waaw bi mu toogee ci bopp koñ bi ni Sénégal maa fi gën a neex jabar. waaw man tudd ma neex neex gi mu yaakaar. Hmm. man neex u mën a togg ceeb laa doon wax. dégg nga a kaf gi mu mën a kaf ak neex googu mu neex di kaf ak ñi jëkkëram ak yooyu. muy sama xarit ma koy dëggal bañ ko ko kañ. waaw wax ja dafa waroon leer balaa ñu lay dóor waaye moom na xale waroon a waaw déedéet waay yow moom jàng na jàng na. Mm-hmm. une phrase par. majuscule. waaw termine point. waaw moom nag deful point. donc looloo ko lay am waaw waaye nga laaj ma rek. war faa def virgule. waaye nga laaj ma rek. déedéet nga laaj ma rek. fi mu ko waxee fi mu ko tontoo fi mu ko dóor nag. laaj xajul nga laaj ma rek. man daal li laaj ma rek waaw man damay démissionné. liste parallèle la rek ku nekk demal sa ngéwalu. waaw jërë gis nga yaar yii bu ñu ko moytuwulee groupe bi dina tas sama baay waxoon na ko. Mhm. nee na bu ngeen di ànd moytu leen jigéen ak xaalis. non groupe gi sax mën naa tas. Ah, ah, ah. waaw mën naa tas. lu koy tas waaw groupe moom du tas ndax day ñaaw suñu dara bu reste par arrière nan def reste ensemble rek hmm. ànd booloo defar suñu ay bu ma génnee groupe bi mbax ci mbax déedéet doo génn moom bu ma génnee <laughs> doo génn alaaj yow kat rek nga fi yow mu la dàq dema fi ne ah, léegi li fi ne mooy li fi ne mooy yaa juum baalu ak ñu dem ci leneen moo gën yaa ngi. baal ma waaw kay. waaw kay jàpp la <laughs> waaw kay jàpp baal ma naa si seet waaw réer na yow naa. réer si seet baal ma alaaji Mansour Mbaye teg ma teg ko. waaw ndax cër bi ma ko jox. oh dégg déedéet Massa. Massa Massa Massa ndeysaan. waaw oh, man benn yax laa waru may dóor. wallaay dëgg la li ma yéene dóor. yéen ma lay yéexal ndeysaan. Euh, euh, euh, man baalu ko àq. te ñu nekk si jàmm. baal ma baal ma. waaw kay man mii maa jum ñu lay róor. dóor naa ko waaye jox naa ko ndàmpaay. ah loo ko jox ah, ah xale bu baax laa ko wutal bu ko jox. ah waaw. Hmm, bon kon bàyyi ah, ma bëgg. alaaji ah, marché ci waay. waaw waaw ab jeex balaay tooy. kon baax. bu rootee tooy. bu toogee nii. ab yet bay balaa baax. ah toog bu tëy fóot. Hmm. te ma daal ab jigéen man yaawu jaar wu ca gën kii nañ ko poosee la bul di siiñ baax na ci bul di